gi nee na lu jëm ci wàllum lukk njuur yi nga xam ne toppe woon nañ ko Aïda Ndiongue jëm ci wàllum produit phytosanitaire yi ba léegi ne mbir maa ngay wéy ginnaaw bi ko ko waa CREI jébbalee ab noolie doyen des juges d'instruction bi moom àndutoon ci doxalin wi nga xam ne moom la CREI doxee loolee moo taxoon mu jël Aïda Ndiongue bu ko correctionnel ñu war koo attewaat ci lu jëm ci ay lukk njuur ak tojaangeek détournement yéenekaay gi nee na ñi nga xam ne nag ñoo nekk ca ba ñoom jël nañu ay dogal maanaam sant nag chambre d'accusation bi ngir ñu kase bi nga xam ne moo jëm ci mbiru moom la ñu ko doon topp yéenekaay gi nee na loolee nga xam ne mooy taxawaayu pale moo tax Aïda Ndiongue jamono ji lu mu man ci jóg wala muy wax ma ngi koy def ngir nag jàppale président Macky Sall yéenekaay gi di Sud Quotidien ñu xëy jànge fa ne sa sekk mi nga xam ne moo ànd ak Macky Sall am na ñoo xam ne ñoo ngi ciy loro ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllum càmbar lu jëm ci wàllum politique nee nañu ànd Macky Sall ak Idrissa Seck waa Benno Bokk Yaakaar ñoo siy dee Serigne Thiam di jàngalekat boo xam ne ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru la nekk di jàngale lu jëm ci wàllum science politique République nee na ànd bi nga xam ne Idrissa Seck ànd na ko ak Macky Sall parti socialiste ak AFP ñooy grand père day yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien li Quotidien La Tribune Dakar Times ñu xëy fekk fa Souleymane Jules Diop nee na Khalifa mi nga xam ne moo jiite coalition taxawu Dakar ak njiitu réew mi di président Macky Sall ñoo ngi déggante ñoo ngi gisante ñoo ngi waxtaan ni ki démb la ko Souleymane Jules Diop xamle yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na Souleymane Jules Diop démb ba kàddoom yàllu daanu la waa taxawu a la Tribune nee na Souleymane Jules Diop wax na ne Khalifa Sall ma ngi gisante ak Macky Sall te fan yi ñu génn déggoon nañu Mahmoud Saleh wax ne Abdoulaye Wade ma ngi jokko ak Macky Sall bi ñu xëy fekk fa Moussa Taye mi nga xam ne moo yor kàddu taxawu Ndakaaru nee na Souleymane Jules Diop li mu wax la ci ginnaaw dëgg la maanaam ay kàcci la moo Moussa Taye ne Souleymane Jules Diop ku ko xam xam ne ay kàcci ak wax lu dul dëgg moo koy dundal waaye nag Khalifa Sall gisante bi mu gisante ak Macky Sall sénégalais yëpp ñoo si teg seen bët 24 mars 2020 ca pale ba ci lu jëm ci wàllum coronavirus Moussa Taye jamono ji ñoom waa taxawu Dakaaru daan nañu défier Souleymane Diop ngir mu andi leen ay preuve ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na boroom réew mi di président dalal na Moustapha Cissé Lo mi nga xam ne seen diggante amoon na ay ñol-ñol ba ñu xëy dàq ko ci parti bi di APR premier vice président assemblée nationale gi mu ñu génne ko ci mooma yéen a kaay gi di mu ñu xamalal ñu ginnaaw mi nga xam ne Macky Sall dalal na ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci APR maire ba waxtaan ak ñoom Landing Savané mi nga xam ne moo jiite AJ/PADS authentique génn na ci noppi gi nga xam ne noppi woon na ko nee na àndul benn yoon si ñetteelu mandat te képp koo xam ne yaa ngi saax-saaxe sa constitution ngir am ñetteelu mandat ci sam bopp réew na la leer na lépp loo xamante ni ne giraawaali la ak i njaaxum yu xew sa réew ma na nga ko assumer démocratie fi mu toll ñaari mandat rek doy na yéen a kaay gii dalee si ko ñu xëy fekk fa Cheikh Bara Doli Mbacké yàq na musiba ak mbelengaan Omar Sarr mi nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk wàllu miina ca assemblée nationale Cheikh Abdou Bara Bara Dolly Mbacké député bi da koo wax ne ko Omar Sarr député yi nga xam ne ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar di la tàccu tey ngay muuñ juróom-ñetti fan ci weeru janvier atum 2013 ñoo dindi woon sa malaanum kiiraay ñaari fan ci weeru novembre atum 2015 député yi ñoo xotti woon sa yére ci Assemblée nationale ñaar fukki fan benn ci weeru décembre atum 2015 ñii nga xamante ni ñoom nga àndal tey ñoo la mandat woon dépôt maanaam ñoo la jëloon dugal la sa kaso ba yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Pape bi tey mi nga xam ne mooy directeur général bu Senelec nee na njëgu courant gi atum 2023 dina wàññeekoo man ka xam le ci cérémonie bi nga xam ne doon na ko amal ci géej waaye ndax lu toll si juróom-ñaar fukk si ay njaboot yoo xam ne coupure courant yàqoon na seeni appareil électronique ñooñu ñëpp maanaam fay nañu leen yéen kaay gi délibération nee na jàngoroy coronavirus bay boo askanu Sénégal jël ci seeni matukaay ndax samedi bi ak dimanche bi lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ci ay cas covid 19 am na ci réew mi am na ñaar ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan yéen kaay gi de nee na ñoo ngi lu jëm ci wàllum couvre couvre-feu ci réewum Sénégal waaye loolee njombe la giraawali la goo xamante ni bis bu si Sénégal duggee du ci gaaw a génn yéen a kaay gi de la quotidien ñu koy fekk fa Pape Samba Mboup wax na ci centre redressement yu Serigne Moura Kara yi daan nay wax ne am na ay jarbaatam yoo xam ne da leen a yóbbu woon ci centre yi waaye nag ñaar la ñu nekke woon ci centre yi ba sa njëkk mooy di way ñaareel ba di tuxum yàmba moom Pape Samba Mboup nee lu toll ci dix-neuf millions la ko laajoon ci centre redressement yu Serigne Moura Kara yi yéen a kaay gii di sunu làmb ñu fekk fa Lamine mi nga xam ne mooy coach Balla Gaye